gan gi euh, doyen Mamadou Sy Albert euh, ñuy jéggalu ci euh, tarde bi xibaar yi tey ñoo daal di xababal ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. ñu am mbégte lool dalalaat la ci matinalu Rewmi FM tey actualité bi nag tënku ci assemblée nationale bi nga xam ni tey jii daanu defar bureau bi installé itam député quatorzième législature bi muy xew-xew boo xam ni nart yomb wante lan lañu si mun a xaar globalement doyen. waaw mën nañu xaar moom que dinañu dinañu gis euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a toogal euh, askan bi fii ak euh, juróomi at dinañu gën a xam ñuy représenter coalition yi wanti tamit bés bu bés bu nar a xaw a compliqué ci coalition yëpp ndax dañu war a tànn président assemblée bi tànn bureau bi Euh, loolu nag soo moytu dina am xëcco dina am xëcco diggante nguur gi ak euh, opposition bi bon am na aussi yaakaar nit ñi yaakaar nañ ko assemblée bi euh, bu nar na nekk assemblée bu bees la am na ñuy wax sax assemblée de rupture loolu yëpp ci ñu ngi xaar ñu ngi xaar bés bu bés bu nar nekk bés en tout cas historique ci histoire assemblée nationale. Mm-hmm. alors ñu tàmbali euh, enjeu yi ak waa Benno euh, ñoom lan mooy solos euh, installé prix bureau bi tey enjeu bi lan la pour coalition présidentielle bi waa enjeu pour Benno moom mooy ñu ñun booloo ñu nekk benn comme na nuñ ko daan defee loo loolu la Macky Sall santaane Benno ñu juboo ñu nekk benn ñaareel bi mooy que président APR président Benno nekk président njiitu réew mi moom xam na ne président assemblée nationale soxla soxla na euh, le euh, euh, kenn ki nga xam ne mooy candidat am ko kooku dafa bëgg pour mu jàll donc ñoom lu ñuy xaar ci assemblée bi tey ji mooy Macky Sall ki mu tànn kooku moo war a nekk président loolu loolu moom defe naa mooy seen objectif ñaareel objectif bi aussi mooy bureau bi bureau bi dina am ay xëcco Euh, Benno dina def lu nekk pour euh, pour contrôler bureau bureau assemblée bi parce que bureau bi moom am na solo lool lool euh, gaagaa président bi am na solo mais bureau bi quand moom mooy structure bi nga xam ne moom moo nar a gérer assemblée bi donc loolu yëpp ñoom dinañu xam naa booloo ñu def lépp pour jël post président bi ak am poste yu baax ci bureau bi. Mm-hmm. alors euh, président Macky Sall jël ay matukaayam euh, ñu ne tëj na député yi presque euh, ay fan euh, di leen surveiller ngir bañ ñu lëkkaloo ak waa opposition bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni nee nañu ñu ngi koy def pour que ñu mun a assurer tey seen ay chance ngir gagner bataille présidence assemblée nationale est-ce que loolu yëpp mu def tax na tey mu am sécurité bi war. déedéet amagul sécurité amagul sécurité de euh, moom président Macky Sall am na lu ko bet ci élection locale am na ñu ñu ko lu ko bett ci législative buggul loolu dabaat ko ci élection président assemblée wala bureau bi bon mu ngi def euh, lu mu mën wante ba tey ji euh, déggo amul ci biir APR ah, ba ba ba ba tey am na ñuy coow ne amul déggoowuñu seen biir hmm. diggante APR ak parti allié yi mooy PS ak AFP ñooñu aussi am na lu ñuy wax ci suuf hmm. donc euh, am na wax bu nekk seen euh, seen biir euh, wax jooju nag su feeñee ci assemblée bi dina am dina am dina indi ay problèmes bu ñu an bu ñu boolewul soo moytul candidat président bi am na ñi nga xam ne ñu ngi ci APR duñ ko wootal am na ay parti allié aussi duñ ko wootal hmm. donc loolu xam naa ne président Macky Sall bàyyi na ci xel bon mais euh, lu mu def na lu mu mënoon wax dëgg yàlla mu def na ko. Mm-hmm. Euh, dalal leen defal leen séminaire bon bañul bañ sax wax ki mu tànn ak euh, ci présidence bi ak bureau bi. loolu yëpp pour moytu li ko daloon ci élection yi mu dalaat ko ci assemblée bi. Mm-hmm. wante nag ba tey ji Euh, euh, APR moo juboowul xëccoo bi ci biir APR la la hmm. nekk ak diggante APR ak parti allié yi hmm. peut-être pour euh, dalal xëccoo yooyu kan lañu ñu a kan la ñu war a tànn xamaguñu ko mais kan nga jàpp ne bu ko tànnoon xëy na yëf yi dina xaw a dal tuuti. ba fu mu nekk nii mën naa wax ne sax. ñoom bennoo amuñu pexe ndaxte euh, Aminata Touré moo de nekkoon tête de liste def na campagne euh, dina teew assemblée euh, jigéen ñi wane na Aminata wane na responsable politique la def na ay résultats aussi jigéen la ku am responsabilité am expérience donc kooku bu ñu bëggul woon bu ñu daal coow seen biir ñu tànn Aminata Touré moo gën moo moo gën hmm. parce que bu ñu indee keneen rek xiiroo ak ngaayoo dina gën a jàmp ci euh, ci ci ci APR bon aussi am na expérience gestion jigéen la ku am xel la ku ku ku am ouverture d'esprit mën na euh, négocier ak waa APR waa waa même opposition bi donc loolu dafa am euh, solo lool lool ku ñu mën a tànn bu nekk jigéen bi nga xam ne politique la te am na expérience euh, gestion des des hommes euh, defe na loolu daal moo gënoon euh, moo gënoon baax ci ci Benno ci jamono ji. Mhm. alors ñuy ñëw ci Yewwi ñoom tey élection bi installation bureau assemblée bi ban enjeu la am si ñoom bu ñu gisee xëy na liñ ci mun a liñ ci mun a faj yëpp comme ay problème bu ñu bu ñu nekkee njiital assemblée nationale wala ñu gën fa teg tànk lan mooy solo si pour opposition bi. waaw pour opposition bi moom am na boo xoolee euh, am am nañu représentativité mësuñu am euh, quatre-vingts députés ba quatre-vingt-deux députés ñu jógee ci opposition loolu mosul am loolu ndam bu rëy la pour opposition bi léegi nag ndam bi ñu am ci élection est-ce que dinañ ko mën a àggale est-ce que dinañu mën a booloo pour ñu tànn président assemblée bi nga xam ne day jóge ci opposition bi ñaareel bi mooy est-ce que dinañu xeex pour ñu am ay représentants ci bureau assemblée bi ñoom loolu mooy seen enjeu fexe ba booloo opposition bi am seen euh, candidat président am seen euh, député ci bureau bi euh, mais aussi woon Sénégalais yi que ñoom am nañu ambition ambition changer doxalin assemblée bi jël prise en charge problème sénégalais yi def naa loolu mooy enjeu opposition bi. Mm-hmm. alors euh, euh, xëccoo bi nag seen diggante euh, doyen lan la leen mën a jural. waaw xëccoo bi moom lu leen mën a jural mooy tasaaroo tasaaroo bu ñu bàyyoon xel ci lu ñu am dinañu delloo Sénégalais yi njukkal nu ñu mënee delloo Sénégalais yi njukkal mooy ñu booloo ñu am benn benn kàddu mais bu ñu tasaaroo du ñu am poste président bi soo moytul aussi lu ñu naroon am ci bureau bi duñ duñ ko am. donc le le et aussi euh, bu ñu fàtte ne que su fekkente ne euh, amul déggoo seen biir mais opposition bi da da day euh, dooleem day wàññeek bu baax a baax ci assemblée bi. kon mun nañ jàpp ne Benno moo ëpp chance su gagné tey. waaw Benno moo ëpp moom fu ñu fu ñu toll nii. mais mais su fekkente Benno juboo nañu. su fekkente ne APR ak alliés yi ñu jàppale candidat bi nga xam ne président moo bi mu tànn. suñ ko jàppale mm-hmm. am nañu chance jël poste yëpp wante suñu jubóowul ci biir APR ak ci biir Benno loolu soo moytul dina am euh, surprise bu rëy ndaxte pour poste président assemblée bi am na premier tour soo amee majorité absolue nga jàll wante soo amul majorité absolue bi day am deuxième tour et loolu su benn suñu boolewul bu ñu dem deuxième tour hmm. loolu dina indi dina indi problème ci ci Benno tey euh, ñàkk déggoo opposition bi est-ce que amul euh, gàllankoor yu weesu assemblée nationale yu mu leen mun a indil 2024 par exemple parce que ku mënul déggoo ci assemblée nationale est-ce que di nga déggoo ci lu ko gën a mag. ah dina indi ay gàllankoor yu rëy parce que quand même sénégalais yi mandat la ñu jox. Hmm. nu ñu nu ñu joxee président majorité même bu dee benn la ëppale opposition bi mandat la ñu jox benn opposition mandat lañ leen jox mm-hmm. donc mandat boobu su fekkee ñoom nañu mandat boobu pour booloo jéem a liggéey assemblée bi jéem a liggéey assemblée bi nga xam ne mën a changer doxalin mën a jël en charge problème Sénégal yi opposition su mënul lool mais yaakaar day tas ci askan bi mm-hmm. yaakaar bu tase Euh, suñu gisee ne que xiiroo ak ngaayo moo nekk ci opposition ñu ngi xëccoo ay poste ñu ngi xëccoo ay salaire mais loolu kenn du leen woolu pour euh, jox leen réew mi donc hmm. loolu nañ ci bàyyi xel que déception moo tax ñu sanctionné Benno mais opposition bi aussi su juree euh, déception mais Sénégal yi dinañ seeti leneen hmm. alors euh, lii nag duggulee doyen opposition bi euh, dem ba ñëpp yaakaar ni nekk nañu benn ñu daal di tasaaroo lan moo waral souvent ñuy am yi problème pour ne pas dire toujours. waaw lu ko waral moom bari na mais wante mooy leadership. Mm. parti bu nekk gis nga dañu pare élection coow euh, bu ñu sax ku nekk bëgg nekk chef de l'opposition. Mm-hmm. leadership boobu. moo tax tey jii PDS lu muy wax Yewwi lu muy wax de de àndul euh, donc am na problème de leadership mais ñaareelu problème bi aussi mooy que ñoom ba léegi opposition Sénégal amuñu euh, tradition waxtaan seen biir ba ba am ba déggoo ci kàddu am programme commun loolu jafe-jafe bu rëy la ci comme ni nga ko waxee yàgg na ci opposition euh, wante nag aussi defe naa quand ci yéew Askan euh, am na benn leadership xëy na am nañu chance am nañu chance am nañu nekk ci biir Yewwi euh, xam nañu euh, am nañu expérience mën nañu négocier xëy na ñooñu bu ñu jógee sol seen dàll waxtaan ak coalition yi ak chef de parti xëy na dina dina dina dina tane wante bu ñu jubóowul moom soo soo moytul Sénégalais dootuñu woolu Yewwi walla wala wala hmm. tasaaroo bi xeeñ diggante yi ak Wallu ndax mbetteel la si ku mel ni yow. waaw mbett mbetteel la euh, ci benn fan euh, parce que quand même euh, Yewwi ak Wallu ay ex ñu ñu leen jiite ay ñu am expérience muy xalifa muy PDS muy yeneen parti politique yi ñu ay homme politique la ay femme politique la ñu am expérience la gis nañu lu ñu am ci élection législative gis nañu lu ñu am ci élection locale mais loolu waroon na leen doy pour ñu xam ne que bu ñu booloo ñu am ndam bu ñu xiiroo ak ŋaayoo ñu bu nekk dem sa sa boor euh, dañuy am défaite donc loolu quand même euh, lu li ma bett la euh, expérience bu ñu am waroon na leen may xel pour que ñu mën a am président assemblée nationale amul beneen yoon bu dul seen boolo ñu am benn candidat bu leen doy bi nga xam ne dinañ ko wax yow yaay suñu président wante lii la lii ak lii lañ la sant loolu euh, defe naa suñ ko mënul def daal euh, ay difficulté la leen nar a jural hmm. jërëjëf euh, doyen Mamadou Sy Albert li si kanam raw li bët si kanam dinañu xam euh, fan la ñuy mujjee ak quatorzième législature bi mais également lan mooy nekk euh, position wu Yewwi Wallu ak Benno Bokk Yaakaar bu ñu noppee ci wot gi nga xam ni secret la loolu itam mën a indi sax ay ay mbetteel si si boor bu nekk effectivement waxtu bi moo ñu xaw a si sinon ñu ñu gën a xuus ci waxtaan wi mais si kanam du ñàkk incha allah ñu ñu ñëwaat ak yow si nu mu gën a yaatoo ñu ngi lay gërëm doyen Mamadou Sy jërëjëf Fatou maa ngi lay fay. am mbégte merci beaucoup vraiment.